إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñu ngi yeesal santaat suñu boroom mi ñu defal tawfiq ñu dund ci chahru ramadan al mubarak daje it ci ab néegam mu wërsëgal ñu ñu tiim ab téeréem di ko jàng loolee nekk ay ngëneel ci biiri ngëneel nga xam ne it bisub altine bi it suñ boroom jagleeloon na ko suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bari woon na di woor altine ñu ne ko dañoo gis ngay bari di woor altine mu ne waa bis boobu day ca la yàlla dogal ca laa juddu bis boobu day ca la yàlla dogal mu wàcc ci man téere bi di alquran ca it bis boobu ca la gàddaaye makka bis boobu ca la dugg madina ca it yàlla dogal na bis boobu ca la wuy di boroomam subhanahu wa taala muy kon bisu altine jooju nga xam ni suñu boroom moo xam an ban ngëneel moo tax mu jagleel ko ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nekkoon ci téereb yàlla bi yegsi woon ci suuratu nisa niñ ko waxe woon ci njëlbeen mooy saar boo xam ne lu ci bari day défendre ñoo xam ne dañu néew doole looloo tax suñu boroom subhanahu wa taala gis nañu mu ci défendre aqu jigéen ñi aqu jirim yi aqu xale yi ñu demoon ba toll ci tey aaya téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñett fii suñu boroom subhanahu wa taala di waxee wan imraatun xaafat min baaliha nushuza mu war a nekk suñu fukkeelu daje ak ñaar ci saaru mag wi incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare nañu bàyyi ko bismillah
وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تفلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني برمني وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا سديدن صحنا dem na ba ragal ca boroom këram ba la nga xam ne mooy ak yëkkatiku ak kawewu aw iraadan walla dummooyu gum koy dummooyu fala junaaha alayhima duñu am benn ngant ci ñoom ñaar an yusliha baynahuma sulha ci ñi yéwénoo seen diggante ak yéwénoo wa sulhu xayr yéwénoo day mooy la gën wa uxdiratil anfusu shuh ndax dana nekk di teewe bakkan ya la nga xam ne mooy ak nay wa in tuxsinu wa tattaqu su dee da ngeen a rafetal ca ragal yàlla fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabiira seen borom yàlla day nekk na ci li ngeen di def di ku ci ñàkk kumpa walan tastatiu an taadilu bayna annisaai du ngeen am mukk it kàttan di maandu diggante ji ci diggante jigéen ñi walaw xarastum même bu doon dafa xir ci seen xol ngeen bëgg lool it loolu mun leen ko def fala tamilu kullal mayl kon daal fexe leen ba bu leen jeng gépp ak jeng fa tasdaruha kal muallaqa ngeen bàyyi ka nga xam ne moom ngeen jeng wan ko gannaaw mu mel ni baag boo xam ne bu ñu wékk la wa in tuslihu wa tattaqu waaye su ngeen yéwénelee ngeen ragal yàlla fa inna allaha kaana gafuran rahima seen borom yàlla day nekk na koo xam ne kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la wa in yatafarraqa suñ demee ba teqali ko yugni llahu kullam min saati yàlla dana woomal képp ci ñoom ñaar ci ak yaatoom wa kaana allahu waasian alima yàlla nag moom nekk na aji yaa xakiman doon aji ku xereñe jalla waala bokk gis nañu suñu boroom saar wi waxoon nañ ca bañ koy door bépp soxna boo xam ne boroom këram dafa yëg ci moom nushuz mooy ak yëkkatiku walaati taxaafuuna nushuzahunna kii mi ngi nekk ak soxnaam dem ba yëg ne soxna si kat mi ngi jóg léegi di ko diir mbagg wala mi ngi jóg bëgg far nekk moom kilifaam ku góor gi suñu borom joxoon ñu ci solution nee na ko mel noonu nañ ko waar delloo ko ci yàlla su amul njëriñ nañ ko mere dummóoyu ko suñ borom may nañu ca ñu dem ba ñeenti weer su dee nañ njëriñ amu ca suñ borom ne nañ ko dóor mi ngi noonu ak la ñu waxoon ca dóor ya su dee njëriñ amu ca suñ borom mu ni nañ uti ndimbal uti ñaar ñoo xam ni ñooy toog diisoo wàllu sëy bi léegi nag contraire bi moo am soxna si moo toog ba yëg ni jëkkër ji kat la waroon digganteem ak moom ragal na ne ni jëkkër jii day mi ngi jéggi dayoo ci moom di ko tooñ di jël ci lenn ay aqam walla mu dem ba yëg ni kat sama jëkkër jii day ci tànki fase ma la nekk su boobaa suñu borom ni dara nekkul ci ñu yéwéndoo ak yéwéndoo ca mooy soxna si mën na woo borom këram da ko kat man bu dee ne liñ may jox daa diis ci yow ba tax mu nar a jur problème suñu diggante man loolee teggil naa la ko wala boog ay gi ngay ay si ci man tous les jours bu dee daa métti ci yow ba tax sëy bi nar a tas teggil naa la loolu heure boo mënee rek ñëwal wala. ay mbir yu demee noonu gis nañu sunu yaay yi sawda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yaay xadija faatoo sawda la jëkk a takk mu demoon ba màggee ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yonent bi alayhi salaam takk na yeneen soxna am xale bu ndaw bu mu takk koo xam ni bi muy ñëw ndaw la lool ci moom muy sunu yaay Aïcha sunu yaay sawda na ko man day bis bi nga doon ay su ci man may naa ko ki nga xam ne mooy Aïcha loolee bu ko defee ak magaayam googu yëpp dootul nekk charge ci moom ba tey it lu demee noonu la sunu mag ñi di tudde ay takkoo nga xam ne da ngeen di déggoo ci mbir moo xam ne léeg-léeg bu ñu xoolee lan cay féetale ak la ngay féetale soxna yi nekk ci kër ga dana doon lu wute borom boobu nag ni ñu fexe woon ba juboo soxna si am lu mu bàyyi ku góor ko it nangul ko loolu loolu de mooy li gën asulhu xayr te it mbokk nañ xam ne bari na ay sëy yu tas ay xëccoo moo ko waral waaye cey bu doon soxna si moom ci boppam mënoon naa muñ rek yéwénal muñ sëy boobee ndax yàlla ak dafa yemalewul góor ak jigéen mbokk góor yàlla may na ko mu dajale ñaar ñett ba ñeent góor yàlla may na ko mu fase tey tey tey tey takk tey tey yooyu yépp nag da ngay gis jigéen amu ci pexe ci loolu rawatina jigéen bu dem ba njaboot loolu moo tax ba la gën rek mooy muñal soo muñee muñ gu rafet suñ borom nee na loolu mooy la gën asulhu xayr ak bari fii ay nit ñoo xam ne ñi ngi leen di rang di leen summil ay dàll ki mbaxaneeg yu deme noonu ca wallahi boo xoolee seen yaay yi liñ daj ci sëy sonn nañ fa lool loolee ñu toogoon di ko muñ ca sulxe bi ñuy wax mooy jigéen bàyyi ay aqam ngir fexe ba suwi ab sëyam loole mi ngi noonu asulhu xayr doonte de suñu borom nim ne asulhu xayr it day valable ci lu mën a doon yéen ñi nekk ci contrat de travail nara tas contrat bi ngir ay problème asulhu xayr ngeen toogoon waxtaan ku ne am lu mu bàyyi ngeen dëppoo loolu mooy la gën lépp loo xam ne nii ay nit ñi ngi koy jëflante ak ñaawoo nar a am seen diggante suñu borom mu ne asulhu xayr yéwénoo moo gën te sulxu buñ koy waxit mooy koo xam ni kii bàyyi dara kii bàyyi dara borom bi nag ne ab bakkan day ak nay da koo jege da koy feeñal ci ay doomu aadama bu ñu bi xëccoo ci mbir rek ku nekk day bëgg sa àq moom daal di mat ku nekk day bëgg a moy ci say droit wax diratil anfusu shah suñu borom ne déet bu mu demee noonu da ngay bàyyi leen ci say droit kee bàyyi leen ci ay droit am ngir ngeen mën a dëppoo rawatina ci wàll gi nga xam ne ci la ñu nekkee muy diggante way dencante yi amma suñu borom subhanahu wa taala nag mu ne ay yéen góor ñi ak yéen jigéen ñi yëpp su dee da ngeen rafetal ngeen ragal yàlla xam leen ne yàlla li ngeen def ko ci ñàkk kumpa la ca mooy yow góor it bul jàpp ne soxna si kat moom ku néew doole la ba tax lenn ci àq mën na koo bàyyi ngir yow tax bay ngay ñaawal jëm ci moom suñu borom mu ne rafetal leen. suñ borom mu ne ragal leen yàlla ca xam ne kat li dox sa digganteeg soxna si mën na am baayam yëgu ko ay nijaayam xamuñu ko dëkkandoo yi kenn xamu ko ci waaye man day xam naa li dox sa digganteeg soxna la chaque ni ab néeg bu ñu joxisee ba tëj la fa nekk ñu nekk ci néeg ba ñoo ko xam waaye suñu borom mu ne dara ëmp mën ak ci biir néeg léegi nag borom bi subhanahu wa taala waxoon nañu ca aay yi njëkk a jàng takk leen ñaar ñett ñeent bu ngeen demee ba ragal ne du ngeen mën a maandu yem leen ci benn soxna maandu boobu nag mooy lan suñ borom ne du ngeen mën a maandu ci jigéen ñi ak lu ngeen xër-xër su ko defee mbokk maandu ba yàllay wax foofee mooy maandu boo xam ni ak jeng la ku ko gis xam ne yow da ngaa jeng amma bu dee sa xol bi fokk mu am ko mu gën a bëgg loolu yàlla subhanahu wa taala moo ko def ci doomu aadama xolam di am ko mu gën a bëgg fokk soxna yi am koo gën a bëgg loolu it yow soxna si su dee sa borom kër mi ngi lay jox sa ay bu dee xaalisa mi ngi la koy jox yëngale kat sama wujj bi la gën a bëgg war ngay laaj sa bopp it lu tax mu gën a bëgg sama wujj bi ca mooy yow it nga jéem a góorgóorlu jéem a dab bànneexam mbokk alqalbu ci mooy xol xol day wëlbatiku maa sumiya alqalbu qalban illa min taqallubihi la nga xamee ne nii mooy xol day wëlbatiku kon sa wujj sa jëkkër mën na ko gën a bëgg tey ëllëg mu gën laa bëgg yow loo mën ci lu baax rek fexeel sax ci loolu jéem a yéwénal sa kemtalal kàttan yow ko góor ki nag suñu borom ne la mënuloo fexe ba soxna yi yem ci yow képp loolu mënu leen ko waaye nag bu leen jeng jeng goo xam ne nii kullal may li lay doon ba képp ku ñëw moom xam ne yow kat kii nga faral te loolu yi mbokk da ngay gis ne bari na lool rawatina ñi ñuy tuddee ay ay nitu diine toujours dañuy am léeg-léeg ñoo xam ne ni ñoom la ñuy jeng jëm ci ñoom ñi ci des moom dañuy nekk foofu rek. suñu yeneente sallallahu alayhi wa sallam yàlla farataalul woon ci moom ak ay comme ni mu ko farataale ci jullit ñi boo amee ay soxna da nga war a yemele ñoom ci ay ga ay nga ci kii benn fan ay kay benn fan ñetti fan ñetti fan lu dul loo xam ne dafa dugg sous contrat de mariage li ngeen waxante woon ba dëppoo ci comme ni ñu ko waxee sànq waaye suñu yonent yàlla tegu ko woon loolu turji man tashaa minhunna wa tuwi ilayka man tashaa la ko yàlla waxoon ku la neex bàyyil fële ku la neex jëlal waaye téewul dafa digg doomu woon ci ay soxnaam bés bu yàlla sàkk dana dugg ci néegu soxna ku nekk gannaaw takkusaan ku nekk bis ba ngay ay doon na la ko jox ba bi mu feebaree sax dañ ko doon jël di ko lëng di ko yóbbu ca fam ay bam naan fan lay war a ay suba mujj soxna yi ñoo dajaloo na ko may nañ la nga yem néeg Aïcha ba néeg boobee fa la tëdd feebaram ba ba fa la faatoo sallallahu alayhi wa sallam loolee kon na am xol bi bu amee kum gën a bëggit quand même bu nekk di bàyyi soxna si léegi la nga dégg ay mbir yu yéeme aajul sax nekk imaam nga dégg ñoo xam ne dañ naan atu yàlla ngi nii tëdd ñu ci ab lal ñaari at bokkuñu lal ñetti at bokkuñu lal wallahi da nga ci gis ñoo xam ne dañ daan fukki at sax bokkuñu lal bokk la li lislaam gërëmut loolu suñu boroom daganulul ci góor nga nekk ak sa soxna ci benn kër même bu dee da nga koo mere ba bëgg koo yar nga mën a toog ñeenti weer yoo xam ne àndu leen islam nanguwul ci loolu bu dee ne nag benn problème amul seen diggante it xamal ne àq la ci moom suñu borom sant ñu ni yàlla bëggul kenn koo xam ne dafay loraate bul bàyyi soxna su ma mel ni ku ñu wékk nga xam ni moom fasewuñ ko ñoo xam ne moom kat amul jëkkër mu ci jëkkër mi ngi ci sëy ba pare ca gisul jëkkëram kon mu mel ni rek ku ñu wékk ci benn place nekkul ci kaw asamaan nekkul ci kaw suuf loole buñ ko def jigéen te loolu itamit mbokk jurit bokk na it lu ñuy bàyyiloo xel suñu mbokk muudu muudu yi da ngay gis koo xam ni day dem Europe daal di nekk fa ak beneen soxna jël benn soxna bi moom bàyyi fi deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans mbir la moo xam ne bu ñu gis la kii nga bàyyi ko kal mu àllaq mbokk loolee day bu dee na am nga ca benn pexe xamal ne yaa ngi def lor yaa ngi def loo xam ne lu xaram la ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ne su ngeen demee ba yéwénoo yéwénoo goo xam ne da ngeen koy teg ci ragal yàlla tuslixu wa tattaqu kenn du jubla lor moroomam ca yéwénoo googu day fa inna allaha kaana gafuran rahima sunu borom yàlla day la nga xam ne jot ngeen caa jaar jég dana leen jéggal dana leen yërëm te it mbokk yaa ngi gis suñu borom mi ngi naan tuhsinu di wax tuslixu di wax tattaqu di wax sulhu xayr ca mooy ab sëy nañ fexe ba subar garde ko bam bañ a tas waaye nag lii yàlla ñaaxaate lépp firiwul nag ne comme li catholique yi di wax da ngay engagé pour le mieux et pour le pire sëy moom buñ ko xisee ba takk jeex na kenn du ko tasati la nga xam ne moom la ñu may mooy ñu deme deme dem ba soxna si ñu yëg ci moom ay jiya masalan ñu gis ko muy njaaloo su ko defee labbe bi signé ne mën nañ def séparation de corps ngeen bañu siqatib lal waaye sëy bi moom kenn du ko tas takk nañ ko jeex na te ngeen di sëy ànd pour lu baax ak lu bon mbokk islam moom gisewut noonu islam moom nañ la gisee mooy tas gi daal yàlla bëggu ko tas gi daal baaxut tas gi dañ ko éviter suñ kemtalal kàttan waaye nag buñ demee ba yëg ne sëy bi continuer day loram moo ëpp njëriñam ah su boobaa nag suñ borom jëlul sëy def ko kaso waaw yow ko góor ki boo yégee loolu ci soxna si bàyyi ko ci njëkk yow soxna si boo demee ba yéeg loolu sa borom kër ñaan ko njëkk génn ci sëy bi ci njëkk mi ngi noonu su ko defee ku nekk yàlla subhanahu wa taala nee na bu ñu teqali ko ku nekk yàlla subhanahu wa taala dana ko may ci ak yaatoom ay ku góor ki yàlla dana ko wuutal soxna su mu déggool ku jigéen ki yàlla wóotal ko góor gu mu déggool ndax yàlla day mooy ki nga xam ne mooy aji yaa mooy aji xereñe te lii ñu waxoon it ca sulxu ba ne yemul ci sëy bi rek ñi nekk ci liggéey bi contrat lu bu mën a doon ngallaway bala ngeen teqali ko ci soor def leen sulx yéwéndoo leen te tey jii da ngay gis année scolaire bi demoon na ba yàqu bañ demee ba syndicat yi mujj dajeeg président président am na lu mu bàyyi ñoom ñu am lu ñu bàyyi ñu am fu ñu daje loolu mi ngi noonu gis ngeen tey grève générale bi am dans toutes nos universités du Sénégal dégg naa ñu ne tey la leen président waroon recevoir yàlla na fa sulhu génne mi ngi noonu ndax xale yi am nañ fu ñu dëgër dinañ fokk ñu dàq ministre tel ministre tel sinon du ñu jàngee ci mi ngi noonu loolu nag la ngeen di daje ba ñu waxtaan yéen ngeen bàyyi dara ña nga xam ne ñoom ngay waxal bàyyi dara loolu mooy la ñuy def sulh borom boobu nag noonu mu waxee sulxu ëñ bu ñu demoon ba ci wàllu sëy ba bu ñu teqali ko ku nekk yàlla wutal ko loo xame ne ni lu yaatu la te it mi ngi noonu bépp ànd boo xam ne yaa ngi ci ànd sëy la liggéey la lum mën a doon nga def ca sa ragal yàlla ga nga war a ragal yàlla yéwénal sa yéwénal ga nga war a def bu yàlla teqalee ki diggante boobu it yàlla dana la wutalal lu gën loolu mi ngi noonu yàlla na yàlla tànnal ñu lu gën àdduna ak alaxira non
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا barakallahu fiik suñu borom mu ne walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na yàlla li nekk ci asamaan yi ak li nekk ci suuf wa laqad wassayna alladina utu lkitaaba min qablikum wa iyaakum dénkoon nañ ña jotoon téere ba jiitu leen ak yéen ñi an ittaqullah ca mooy ragal leen yàlla wa in takfuru su dee da ngeen dem nag ba weddi fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na yàlla lépp lu nekk ci kaw asamaan yi ak kaw suuf wa kaana allahu ganiyan xamida yàlla day nekk na ko woomle xamida koo xam ne nii ku yeyoo cant yépp la xamida day firi kuy sant sant gu jotale day firi kañu sant ka sant gu jotale ñaar yooyu yëpp xamid da cay taxaw walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ñeel na yàlla lépp loo xam ne nekk na ci asamaan yi ak suuf wa kafa billahi wakila doy na ci yàlla rek muy koo xam ne mooy wakiil di taxaw lépp lu mën a doon ci nguuram in yasha yuzhibukum bu ko neexee mu yóbbu leen ayuhan nas yéen nit ñëpp wa yaati bi axarin mu indi ñeneen ñu dul yéen wa kaana allahu ala dalika qadira ca yàlla day ci loolu ku ci am kattan la man kaana yuridu sawaba dunia koo xam ne day daa bëgg payuk adduna kese fa inda allahi sawabu dunia wal axira nekk na ci yàlla payuk adduna ak payuk alaxira wa kaana allahu samian basira te yàlla day nekk na aji dégg lépp aji koy gis lépp jalla wa ala mbokk suñu boroom wax nañu nañu rafetal sëy bi bu ñu teqalikoo it nañ ko yaakaar ndax mooy ki yaa ki xam lépp mu ne na xam leen ni mboolem ñi nekk ci kaw asamaan yi ak suuf muy malaaka ya ñi teg jinne jant ak weer ak biddiw ak lu mën a doon loolu lépp yàlla subhanahu wa taala nee na maa ko moom samay jaam lañu la ma dénkoon ñi leen fi jiitu woon di ahlul kitaab moom laa leen dénk yéen ñi dénkaane bi benn rekk la mooy ragal leen yàlla mbokk ragal yàlla mooy fexe ba def kiiraay sa digganteeg merum yàlla lan mooy jur merum yàlla mooy bàyyi ay ndigalam wala def ay tereem loolee da ngay gis la yàlla dénkoon ñëpp ittaqullah lu tax yàlla moomu day boo ko moyee mën na laa mbugal su ko defee it noonu la ñuy déggee ni ki ragal yàlla dana ko may génn waay ca ay xat-xatam dana ko wërsëgal fu mu ko foogewul ki ragal yàlla dana def ay yombal ci ay mbiram ki ragal yàlla day yàlla dana ko doy loolu kon samay jaam ngeen ragal leen ma léegi nag bu ngeen weddee yéen nit ak jinne day jaaxalu leen ma ndax yàlla moo moom mboolem li nekk ci kaw asamaan yi ak suuf muy ñaareelu yoon bi muy wax lillahi ma fi samawati ma fi l ard wa kaana allahu ganiyan xamida yàlla mu ni moo moom li nekk ci kaw asamaan yi ak suuf yàlla ku woomle la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam netti li ñu sunu borom lu mu wax ci xadiisul qudus sunu borom mu ne ay yéen nit ñi ak jinne yi su ngeen daje woon ci xolu ki gën ci yéen muy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp ngeen mel ne muhammad yokk leen sama ngóor gi lu toll ni pusa la muy yokk ci géej su ngeen daje woon ci xolu ki gën a bon ci yéen yéen ñépp ngeen mel ni iblis wàññiwul sama ngóor gi lu mel ni li ab pusa di wàññi ci géej dara la ci dul wàññi kon yàlla mooy alxani mooy ki woomle jaamu gi nga xam ne daf ñu ko sant mboolem li ñuy defal yàlla njëriñ la ci ñun lay dellu yàlla soxlawu ci dara sooy julli njëriñ bi ci yow lay dellu azaka ci yow lay dellu aj mag ci yow lay dellu lépp loo def lu baax ci yow lay dellu allahu wal xani mi ngi noonu waaye it mooy xamid mooy koo xam ne nii mboolem waa asamaan ak suuf ñi ngi koy sabbal di ko tagg borom bi mu ni wa in min cheyin illa yusabbixu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum mi ngi noonu tusabbihu lahu samawatu sabu wal ard wa man fihinna borom bi nee na lépp lu nekk ci kaw asamaan mi ngi sabbal yàlla des milliards et des milliards de biddiw de ay planètes la nekk ci kaw suuf ay milliards et milliards ci ay jën ay xorondoom ay picc ay nangam ay garab ay lu mu mën a doon suñu borom mu ne amul lu mu mën a doon bépp xobu garab lenn lu mu mën a doon lu dul borom bi nee na mi ngi sabbal yàlla di sant yàlla kon yow doomu aadama boo ko santul boo ko sabbaalul lan la ko wàññi wàññiwu ko dara waaye borom boobu it mooy xamid mooy jaamam yi koy sant jaamam yi koy sant moom it dana leen sant dana leen di sante ca mooy dana leen jox ay xéewalam adduna ak alaxira borom boobu nag waxaat ñetteelu yoon ne xam leen ne day ñeel na yàlla mboolem li nekk ci kaw asamaan ak suuf te doy na yàlla muy nekk koo xam ni muy alwakil lépp moo ko taxaw amul kenn ku koy dimbali ci dara looloo tax yow mi borom xel booy dimbilikoo dimbilikul yàlla rek man yaxlaukum bi leyli wa nahaar min arrahman ana kan moo mën a gàddu say mbir ana kan la mën a protéger ana ku la mën a aar ku la mën a xettili ku dul yàlla mooy taxawul lépp jalla wa ala mu tax kafa billahi wakila kulli cheyin wakil jalla wa ala borom boobu nag da ngay gis ni nee na su ko neexee yóbbuñu ñun doomu aadama yi indi ñeneen ca loolu day lu yomb la ci yàlla na am mbokk julit doomu aadama nañu xam ne nekkuñu woon cosaan ci kaw suuf ki jëkk ñëw ci kaw suuf mooy sunu bay aadama te teewul woon avant muy ñëw yàlla nekkoon yàlla nekk yàlla ay mbindaafonam su ma neexee buub leen yéen yépp yóbbu ca loolu du ma wàññi dara ñaareel ba mbokk dañuy gis ne ña yàlla doon waxal ba alxuraan di wàcc au septième siècle ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ñoom bi ñoom ñëpp yàlla dugal ñu leen ci biir suuf day ana ñu ci toppoon di ñu ngi ci biir suuf ana ñu ci toppoon ba tey ñu ngi dund quatorzième siècle mi ngi noonu gan quatorze siècle gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay leer na ñun ñii nekk ci kaw suuf tey un siècle ci gannaaw nekkuñu fi woon un siècle ci kanam duñ fi nekkaat yàlla buub ñu ñun ñëpp yóbbu su ko defee kon yow doomu aadama bi da ngay gëm ni moomee lu ko yàlla nga moo tànn waxtu wu ko neex mu indi la ci kaw suuf mooy tànn waxtu wu ko neex wum lay jëli ci kaw suuf bi mu lay indi tagguwul kenn bu lay jël du taggu kenn su ko defee yow lan mooy la nga xam ne moo lay jëriñ lan moo la mën a taxaw ittaqullah ragal leen yàlla moom nga xam ne moo leen moom ca moo leen di indi ca moo leen di yóbbu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne loolu ku ci am kattan la léegi nag tey li yàq diine ñu bëri mooy dang dang topp àdduna suñu borom ni su dee ne payug àdduna ngeen bëgg ay résultat boo xam ne day juddoo ci seen effort yi ngeen def ci àdduna xam leen ne day lépp lu ñuy joxe ci àdduna ci loxo yàlla la nekk lu ñuy joxe ci àllaaxira ci loxo yàlla la nekk looloo tax kenn gënta gàtt xel koo xam ni uti àdduna dafa yàq jaamu yàllaam mbokk jaamu yàlla gi nga bàyyi dang dangi jëm ci àdduna xanaa xamoo ni kenn mënul am ci àdduna lu dul neex yàlla loolu tax suñu borom ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun bind ma nit ñi ak jinne yi lu dul ngir ñu jaamu ma man kese maa uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bëgg moo ñu may jox benn wërsëg bëgg moo ñu may leel inna allahu huwa razaq zul quwati almatin yàlla muy wërsëgal ku ko neex mooy borom kattan gu dëgër gi kon yow yàlla dalaa bind pour jaamu yàlla lépp loo xam ne sàkk wërsëg la boo xam ne mi ngi yàq jaamu yàlla googu ngal la waay julit bu ko sàkko ci loolu loolu ñu ngi la koy dénk monsieur Modou Modou ñu bari ci ñoom dañuy gis ne dañuy jàpp ñu ngi dëkk bi yéeféer kon fii mënuñu fi jaamu yàlla lan moo leen indi ci dëkk bi wut xaalis nañu wut xaalis buñ ñibbee Sénégal jaamu yàlla waaw d'accord wut xaalis moo la indi ci réew mi waaw lan moo la indi ci àdduna nag moom li la indi ci àdduna mbokk di mooy jaamu yàlla kon jaamu yàlla muy priorité jaamu yàlla gi muy priorité xamal ne la nekk Amérique la nekk Italie yàllaa ko fa def xamal ne yàlla moo leen séddale am na américain pur seen baay di américain seen maam di américain amérique lañu juddoo yaroo ko ca pour ñu lekk ca poubelle ya la ñuy dem lekki noonu la amee ci français yi noonu la amee ci partout kon wërsëg wi ci loxo yàlla subhanahu wa taala la nekk yow boo koy ut ut ko ci yoonu yàlla yow élève bi nekk di jàng xamal ne diplôme yi ngay wut loxo yàlla la kattanu yàlla la fexeel jàng na nga mën a jàngi waaye njàng ba mu yàq mukk sa jaamu yàlla liggéey booy mën a taxawu ci kaw suuf dafa sakku alal sakku ko sa kemtalal kattan waaye bu mu yàq mukk ndax lépp ca loxo yàlla la nekk looloo tax ba jullit xamal ne ñaan gi gën ci ñaan yi mooy ñaan gi tënk yépp rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annar yàlla yàlla nag ñu dikkee may ñu ci àdduna lu baax may ñu ci àllaaxira lu baax musal ñu ci sawara ndax da ngay gëm ni amul lenn loo xam ne danga ko mën a am lu dul ne ci yàlla da jóge ak lum néew néew wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp loo xam ne am nga ko rek xamal ne xéewal la gu la yàlla subhanahu wa taala jagleel borom boobu nag nee na muy aji dégg lépp aji xam lépp looloo tax loo bëgg ci àdduna nga la way ñaan ko ko loo bëgg ci àllaaxira nga la way ñaan ko ko ca xamal ne loo nekkee mi ngi lay gis looy wax mi ngi lay dégg yal nañu jagleel teraanga àdduna ak teraanga àllaaxira mi ngi noonu Cheikh Ousmane waaw
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا barakallahu fi suñu borom mu ne yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm koonu qawaamiina bil qist nekk leen aji taxaw cig maandu te shuhadaa lillah doon aji seede ngir yàlla kese walaw ala anfusikum même bu dee da ngeen di seede ci seen kaw bakkan yi awil walidayni wal aqrabin wala di seede contre seeni wayjur ak seeni jegeñaale in yakun ganiyan aw faqira na doon kooku daa woomle wala mu doon ko ñàkk fallahu awla bihima yàlla day moo gën a yey ci ñoom ñépp fala tattabi'ul hawa an ta'dilu bu leen topp seeni bànneex ba bañ a dig maandu ay bañ a dig digg doomu bañ a maandu wa in talwu bu dee da ngeen a jeng nag aw tuuridu wala ngeen dummoo yu bañ a seede fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabira seen borom yàlla day ci li ngeen di jëf ku ci ñàkk kumpala jalla wa ala yaa ayuha allazina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm aminu billahi wa rasuli gëm leen yàlla gëm ab yonentam wal kitaabi alladi nazzala ala rasuli ak téere ba nga xam ne wàcce na ko cib yonentam wal kitaabi alladi anzala min qablu ak téere ba nga xam ne wàcce na ko lu jiitu wa man yakfur billahi wa malaikati koo xam ne dafa weddi yàlla weddi ay malaakaam wa kutubihi wa rusuli weddi ay téereem weddi ay yonentam wal yawmil axir weddi bés bu mujj ba faqad dalla dalalan baida ko mel noonu day réer na réer goo xam ne réer gu sori la mi ngi noonu mbokk suñu boroom daf ñuy woo ci li gën a màgg lum ñu jagleel ca mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm suñu boroom mu ne nekk leen aji taxaw cig maandu te mbokk maandu te mooy la yàlla subhanahu wa taala wàcce woon ci ay yonentam atte boobu rekk maandu bépp atte boo xam ne safaanoona ak alquran maandu te amu ci suñ borom mu ne wa laqad arsalna nuuhan wa ibrahima wa jaalna fi zurriyatihima annubuwata walkitab li yaquuma annaasu bilqist maa wàcce téere yi ca yonent yi jiitu woon noox ak ibrahim ak seen gannaaw ngir nit ñi mën a taxaw ci maadu te suñu borom nee na nekk leen aji seede ca yàlla rekk a tax même bu doonte ni mbir ma day dal sa bakkan taxawal ca kanamu attekaay ba ne ay li yéwén man mii day maa tooñ ay li yéwén man maa jalgati mi ngi noonu ala anfusikum bu dee ne dafa dal ci sa wayjur ngàllawaay taxawal seede ne ay li yéwén sama wayjur wii de moo tooñ na doon yaay la na doon bàyyi la bu dee dafa dal kenn ci say jegeñaale kum mën a doon kookee na doon doom la soxna la kum mën a doon suñ borom mu ne seede leen ak maandu te ci seen diggante waa ji bu dee ko woomle la ci alal lu ne mi ngi la koy defalit nga jàpp ne bu ma seedee dëgg ci kawam mu dagg loxoom ngal la way teewul seedeel dëgg ci kawam waa ji dafa nekk ab faqiir nga jàpp ne ak kii kat dama ko yërëm su ma seedee dëgg gi loolee da koy lor déedéet suñu borom mu ne lu mu ñàkk ñàkkit seedeel dëgg ci kawam xam leen ne ñooñu ñépp de yàlla gën a yey ci ñoom ay fexe ba sàkku ngërëmal yàlla moo jiitu ci sàkku ngërëmal wayjur moo jiitu ci sàkku ngërëmal borom alal moo jiitu ci sàkku kum mën a doon fallahu awla bihima ngallaawaay bu leen topp seeni bànneex ba bañ a maandu mi ngi noonu te wax nañ leen ko sànq bokk na ci bànneex bépp atte buñ tëral di ko atte woo ca du atte bu yàlla suñu borom mu ne faxkum baynahum bima anzala allah wala tattabi ahwaahum atteel ci ñoom ci li ma wàcce ca bul topp seeni bànneex doonte ne mbir la bu ñuy gën a détaillé ci saar bi ñu jëm di suratul maida borom bi nag subhanahu wa taala ne suñu demee ba atte bi taxaw intalwu bu dee da ngeen ne jeng jeng ga na doon kay atte moo jeng na doon kay séede moo jeng na doon ko waroon a wax dëgg moo ko waxul ba jeng aw tuuridu wala ba ngeen dummoo yu ba ñu jël atte bu yàlla dummoo yu ba ñu séede dëgg ga nga xamee ne nii moom mu aji séede ja xam leen ne yàlla day ku ñàkk kumpa la ci li ngeen di def te mbokk léeg-léeg seede suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na nañ koy joxe ci yàlla tax seede dana tax nit ki ñu delloo ko ak xam seede dana tax ñu condamné woon ab innocent yow nga xam dëgg ga ñëw seede ba tax innocent boobi ñu daal di koy teggil lañ ko naroon a teg looloo tax nag suñu borom ni nañu seede ci dëgg bu ñu bàyyi seede gi ca bu ñu jeng te yàlla day li ngeen def ko ci ñàkk kumpala naam borom bi bàyyi loolu daal di wëlbati ko waat ca bala ñuy bàyyi loolu it nañu xam ne mbokk suñu borom ñi mu lim fii di way jur yi jege ñaale yi xattaa yéefiir yi ci la ñu bokk xattaa yéefiir yi ci la ñu bokk soo demoon bay atte diggante jullit ak yéeféer suñu borom dañoo sant ñu maandu seen diggante danañu fàttali yonent bi alayhi salaam bi mu tijjee xaybar mooy foofu nga xam ne dañ ko fa empoisonné woon ba yàlla dogal loolu sax moo ko yóbbu la xira sallallahu alayhi wa sallam waa xaybar dañoo siñanteeg moom mu bàyyi leen ca dëkk ba ñoom ñu continuer bay tool yi bu ko defee at bu nekk bu ñuy góobee ñu xaaj tool yi tàndarma yi genn wàll gi yonent bi jël ak i sahabaam genn wàll gi ñoom ñu jël léegi yonent bi yebalal leen abdullah ibnu rawaha pour mu war a nekk juge ci loolu bi abdullah ibnu rawaha ñëwee yahudi di jël ko yëkkati ko defal ko ay taraanga defal ko ay kii mu ne waa lii lu mu doon ñu ne ko ah dañoo bëgg rek comme yaay nar a atte ci séddale bi yooyu ah nga dimbali ñu rek maandu suñu diggante mu ne leen xéey maa ngi leen di yëgal ne ki ma jógee day mu yonent bi alei salatu wasalaam moo ma gënal lu yàlla bind yéen ñii ma fekk si yéen laa gën a bañ ci lu yàlla bind demoon garde ay mbaam xoox ak i golo bu ma gënal ñëw ci seen biir waaye maa ngi leen di seedeel bëgg gi ma ko bëgg ak bañ gi ma ko bañ du tax mukk ma jeng jëm ci moom wala jeng jëm ci yéen ci la nga xam ne mooy laa war a atte ci ku nekk ak àqam yahudi na ko waaw dëgg gi de moo tax asamaan ak suuf di taxaw ba léegi doonte ne xam ngeen ñoom suñu borom seedeel na leen ne xam nañ dëgg ba pare lank bañ caa topp am déet mooy almaxdubi alayhim loolu it kon mbokk julit day doon aji maandu bari na nag lu bari suñu jeunes yi dañuy jàpp ne man dem naa Europe ñii ay yéeféer lañu lu la neex rek mën nga leen ko def dégg naa ci ñoo xam ne dañ daan hé ñi ñoo suñu loolu sëñ bi loolu leen def rek dagan na fi nga noonu léeg-léeg gis koo xam ne day dóor mu daanu mu jël cartable am daw kii def lu nekk pour pour ñoom ay yéeféer lañu rek lu ne mën nga ko def seen diggante mbokk déedéet islam gisiwut noonu mi ngi noonu islam dafay gis nit ki ñu maandu seen diggante mi ngi noonu ba baa nag yàlla dañuy dajeeg moom ci jihaatu sharia su boobaa jihaatu sharia la mais tant que jihaat amul chrétien la juif la comme mën a doon nañ maandu seen diggante. jamono Omar ibn Khattab bi mu yónnee Omar ibn al-As mu nekk amir ci Égypte ak lu ko wër jumaa ji ñu doon jullee dem na ba jumaa ji xat ñu ñëw Omar ibn al-As daa di ne benn jigéenu chrétien bu nekkoon ceetu jumaa ja sa kër gi dañ ñu koy jaay. ñu dellu ñu dolli ko ci jumaa ji mu ne man sama kër du ma ko jaay mu wax wax ñu ne sama kër du ma ko jaay mu ne garde yi dem leen ñu dem toj kër gi maase la ko yokk jumaa ji soxna si moom it boolewu ci coow fexe jël ay waruwaayam dem ba Madina wax ko Omar ibnul Xattaab Omar ibnul Xattaab bindi benn lettre yónnee Omar ibnul As la ko sama lettre bi bis bu yegsee toj leen jàkka ji tabaxatal soxna si këram delloo ko ko gaa yi di lii mooy maandu ci lislaam de ab chrétien jigéen chrétien toj leen fi ngeen yokkoon ci jàkka ji delloo ko la nga xam ne këram mi ngi noonu ba ba soxna say dooga am coobare boppam jël këram pour ñu joxe ko lii mooy maandu te borom boobu nag wëlbati ko mu ne ay yéen jullit ñi gëm leen yàlla gëm yeneenti yàlla yaa ayuha alladina amanu aminu loolu li muy firi mooy ay yéen ñi gëm sax leen ci ngëm ca mbokk ngëm yàlla day yokk di wàññeeku tànk yaa ngi jege place yi xam-xam tànk yaa ngi def lu baax sa ngëm ngi yokk tànk yaa ngi saggan sa ngëm ngi wàññeeku ba léeg-léeg doomu aadama mën naa dem ba kéeféer lay gën a jege ngëm xoolal suñu borom xasootu uhud ñooñu nga xam ne dañuy dawoon bàyyi yonente bi alei salatu salaam mu ne innahum yawma isin bil kufr mu ko waxati aqrab minhum aqrab minhum bil iman keroog day yéeféer sax lañ gën a jege ngëm yàlla looloo tax ngëm yàlla dañ ko war di suuxat baril jàng alquran baril nekk ak ñu baax baril def lu baax aminu ba pare it la nga xam ne moo ko yokk mooy xam-xam moo ko xam-xam mooy yokk ngëm soo demee ca la nga xamee ne nii borom xam-xam dañ lay jàngal kaddu laa ilaha illallah dafa am ay shurut yi mu war a àndal la nga xamee ne nii alqabul al inqiyad ay yeneen yeneen ba yóbbu ko ci juróom ñetti charte yoo xam ne nii laa ilaha illallah àndoon ak moom loolu dañ koy jàng kon aminu billah jàng leen kan mooy yàlla yàlla moomu dafa am nuñ koy war a jàngee gëm ko ci rububiya mooy ki ñu moom waaye gëm ko bi asmaihi wa sifaati yàlla subhanahu wa taala daf ñoo feeñu ci ay tur yu bëri rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ko wattu juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeenti yàlla yooyu day ku mel noonu da ngay gis ne day dem ajjana mi ngi noonu yàlla moom a feeñuñ ci kattanam kon dañoo war a gëm yàlla gannaaw ba gëm ay malaakaam malaaka yooyu nañ leen di gëmee bokk na ca gëm seeni rôle bokk na liñ ci gën a concerné mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala boole nañu ak i malaaka léegi bi ñuy julli tàkkusaan yàlla am na malaaka yu àndoon ak ñun depuis fajar jox na leen ordre pour ñu yéeg ko asamaan yàlla wàcceel nañu ñaari malaaka képp kenn ci ñun képp kenn ci ñun bu ñu nekkoon tey deux cent ci jàkka ji quatre cent malaaka ñu ngi ñu wër loolu fu ngeen mën a nekk nag cent mille yi nekk ca terrain football ba ñu nekk ca théâtre ba ñu nekk ci night club ba bépp doomu aadama yàlla nga ko booleeg ñaari malaaka suba ñaari malaaka ngoon ila axiri malaaka yooyu ñoo lay faat malaaka yooyu ñoom may dajal bàmmeel malaaka yooyu ñoom ngay fekk boo dekkee sa bàmmeel malaaka yooyu ñoo lay escorté pour nga dem ajjana wala escorté la pour nga dem sawara mooy gëm ay malaakaam waaye itamit gëm la nga xam ne moom mooy ay yonentam comme ni ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala waxe doonte ne ne fii dafay jëkk a wax ne gëm leen yàlla gëm ay yonentam gëm ay téeréem gëm téere bi mu wàcce ci yonent yàlla muhammad gëm téere bi mu wàcce ci li ko jiitu nazala mooy loo xam ne dafa wàcc nànk-nànk mooy alquran ci diiru ñaari fukki at ak ñett la wàcc amma anzala mooy lu ñu wàcce benn yoon looloo tax suñu borom ne inna anzalnahu fi laylatul qadr suñu borom dafa wàcce alquran lépp ci guddi laylatul qadr am fu mu ko denc ci asamaanu benneel gannaaw ba nag événement bu am ci diiru dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya yu méngoog moom yàlla wàcce ko amma bu dee téere yi jiitu tawraat injil benn yoon la ko yàlla wàcce ci seen yonent moo tax allazi nazzala ala rasulihi ak ya nga xam ne anzala min qablu da ko wàcce woon lu jiitu ca muy wane ne kon après alquran téere dootul am borom boobu nag ci la waxe ki weddi yàlla weddi ay malaakaam weddi ay téeréem weddi ay yonentam weddi allaaxira ku mel nii day réer na réer goo xam ne réer gu sori la ca li ñu waxoon ci ngëm yàlla wax ko ci malaaka yi loolu la ñu wax ci yonent yi yonent yàlla muhammad jullit ñu bëri day gëm nañ ko waaye lu ñu xam ci moom xamuñu ci moom dara téere alquran jullit ñu bëri gëm nañ ko mais lu ñu xam ci alquran xamuñu ci alquran dara mi ngi noonu mu nekk musiba bu rëy kilifa diine ay junni junni topp ko mu ne alxuraan man neuf waaw dong laa ci xam ndax waaw daanu rëkkum neuf te kat nee na moo nar a jiiti nit ñi mbokk lii mooy musiba bi nga xam ne moo ñu daal su ko defee gëm alxuraan du gëm rek ne téere wàccoon na loolee ñi ngi koy gëm ci tawraat ak injil jullit dañ laa sant nga gëm ni yàlla wàcce woon na tawraat ci Muusa injil ci Isa Zabuur ci ilaaxiri amma alxuraan du rek yàlla dalaa sant nga gëm ne alxuraan wàcc na déedéet yàlla dalaa sant nga gëm li nekk ci biir alxuraan suñ borom mu ne afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad même ku gëm genn wàll gi wedd genn wàll gi suñu borom nee na ko mel noonu toroxte nga àdduna ak alaaxir moo koy xaar kon gëm alxuraan muy gëm la ci biir borom boobu nag nee na ki weddi yàlla ak yonentam ak i malaakaam réer na réer goo xam ne génne na ko ci diini lislaam muy fa sore sori mi ngi noonu yàlla yàlla musal ci loolu naam inna alladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
jazakallahu xayra suñu borom mu ne inna alladina amanu thumma kafaru ña nga xam ne day dañoo gëm gannaaw ba ñu weddi summa amanu summa kafaru gannaaw ba ñu gëmaat gannaaw ba weddiwaat summa zaadu kufra gannaaw ba ñu dolleeku ak kéeféer ba baa ñuy dee lam yakuni llahu li yaxfira lahum ñu mel ni day yàlla du leen jéggal wala li yahdiyahum sabila te yàlla du leen jubalit ci aw yoon bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima dégga leen munafiq yi ci ne dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu tar lay doon alladina yattaxizuuna alkafirina awliyaa min duni almuminin ñooñu nga xam ne dañu jël yéeféer yi def leen ay farandoo yu ñuy féetewoo bàyyi la nga xam ne mooy jullit ña gëm yàlla ayabtaxuuna indahum al izza ama ndax dañuy sàkku ci yéeféer yooyee ak teddaange fa inna al izzata lillahi jamia teddaange mboole seen day yàlla rek la ñeel wa qad nazzala alaykum fi lkitab ca moom li day wàcc na ci yéen ci téere bi an ida sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha heure bu ngeen déggee aayay yàlla yi ñu nekk di ko weddi ak di ko saboote fala taqudu ma'ahum bul toogaa bu leen toogaale ak ñooñu xatta yaxuudu fi xadisin gayri ba baa ñuy nekk di xuus ay di wàcc ci beneen wax bu bokkul ak wax ju ñaaw joojee ñuy wax suñu borom mu ni innakum idan misluhum su dee yéen a ngi continuer toogaale ak ñoom day kon day yéen a yem képp yéen ak ñiy def lu bon loolee inna allaha jaami'ul munafiqin yàlla dana boole naafiq ya wal kafirin ak ñi weddi yàlla fii jahannama jamia ci biir sawara mboole seen mi ngi noonu bokk suñu borom wax nañu sànq ya ayuha alladina amanu aminu ay yéen ñi gëm sax leen ci ngëm amma fii nag mu ne ñi nga xam ni dañoo gëm ba pare wëlbatu ko waat weddi naam benn waaye ngi gëm na yàlla dugg ci lislaam daal di wëlbatiku génn ci lislaam yàlla xam lu ko ci génne mu dajeeg ñu ko waar delloo ko gannaaw mu ñëw gëmaat ci lislaam yàggul mu dem ba yàgg mu génnaat ci lislaam ñaareelu yoon mbokk ko mel noonu suñu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem bu tuubaatoon it yàlla baal ko bu dee ci tuub googee bi gis nga suñu borom dene summa zaadu kufra ay duggoon na ci lislaam génn ca duggaat ci lislaam génn ca daa di génn génn goo xam ne nag dellu si waatul ba dee suñu borom nee na ñu mel nii day du leen jéggal te du leen teg ci aw yoon même bu doon te ni dugg na ci dund na ci lislaam soixante-dix ans it dara la ko dul jëriñ ca it lii lu ñuy jàngal mbokk ne nit ki tuub dugg ci lislaam tubaab laa nit ku ñuul laa kum mën a doon ñu dem ba yàgg yëg ni génn dafa génn ci lislaam ngalawaay lañu waxaat ak moom netti dinaa leen fii soir suñu mbokk bajaan nekkoon na ci inspecteur yu Sénélec yi yàlla dafa dogaloon mu nekkoon chrétien bokkoon ak sunu mbokk ba laa ji Fajur Gueye benn bureau kooku di ko waar guddi di ko waar bëccëg bam nangoo dem tuub dugg ci lislaam noonu muy dund ci lislaam mbokki chrétien yi def bloc ci kawam yàlla dogal it El Hadj Fadour nekk congé ñu profité ci loolu profité ci loolu ba delloo ko waat église delloo ko waat seen christianisme li nga noonu am na benn mbokk bu fiiral lislaam boo xam ne ci daaw bi la nekk sax kii dañ ko war a rey dañ ko war a nangam Fadour na ko déet waaw mais ñii dañu def pression ci moom ñu ne nañ def pression ci moom rek continuer defaat ci moom pression ba bajaan dellu si waat ci lislaam wax naa leen ne boo ko gisoon tey ba mu dëpp mu dugg ci lislaam foo ko fekk day kaaloo buñ ne laa kii mas naa nekk ab ku dul jurit doo ko gëm yaa ngi dégg loolu kon lu mën a nekk la am maa nag bu dee koo xam ne ba mu duggee ci lislaam dañ koo bundu xataal ba tax mu génn ba dee ca loolu te ak a bari ak a bari ñu naan la ragal samay mbokk moo tee mu dugg ci lislaam mi ngi noonu ne benn jigéen boo xam ne xeet yi ñu bokk ci ñi gën a tar ci diine ci la ñu bokk ñu gën a contre l'islam ci la ñu bokk naam am na suñu benn waay dem na ba convaincre ko ba mu ne day dugg ci lislaam mais yaayam moo ne ko bés boo duggee ci lislaam danaa dem ci bois sacré ñu rey la yaa ngi dégg mu ne daal looloo loolu daa ragal ñëmul dugg ci lislaam ba tey bu duggee dañ koy rey loolu mu daal di bàyyi kon bari na ci loolu waaye suñu borom yàlla day nee na ku ci tuub mu baal la waaye ku dee yàlla kéeféer suñu borom du la jéggal ca itamit mbugal mu tar mi ngi nekk di la xaar ca mbokk loolu du lu ñuy maslaa ci àdduna ragal mbugalu doomu aadama ragal intérêt bu ñu la dagal du tax mukk nga négocier sa diine ba bàyyi sa diine ku ko def safara nga jëm borom boobu nag subhanahu wa taala ni bégalal ma naafiq yi ci ni mbugal mu tar mi ngi leen di xaar ñan ñooy naafiq yi mooy ñi nga xam ne au lieu ñu farandoo ak jullit ñi dañuy dem di farandoo ak yéeféer yi lu ñu sàkku ci ñoom ngir bëgg ah promotion bëgg teddaange ma ñooñu xanaa xamuñu ne teddaange yépp ci loxo yàlla la nekk na am gis nañ ko lenn ci suñu waa réew ñoo xamee ne nii euh, jamono yi ñuy wax ngir kontaan loo yahudi ak occident tax lu nekk mu wax ko sunu yonent doyadal ko gën jaam gi doyadal ni màkk gee ñuy wax dafa aji ji ku leen wax màkk la ñu war a aji ji moom moo xam fi ñu war a aji ji lan la ci bëggoon izza pour bëgg am promotion waaye yàlla toroxtaange la ko ci jàll de lay li ko reetet ci Sénégal ci ay sëriñ ci ay waxkat loolee bu ko jigee dana ma jaaxal di nga noonu bu dee ne promotion la bëggoon pour falu bu amoon 15 pour cent ci ay voix day dellu na ba 0 virgule 0 0 0 mi ngi noonu yàlla bu mu am dara ci àdduna mi ngi noonu mi ngi noonu loolu rek lan ma tax mooy ca bu doon te ne biñ ko toppee sax tuub na dellu gannaaw à 100 pour cent mais gis nga ña nga xam ne ñoo jëkk a jóg di wax ci moom mu leen di tuddee ay muslimatul kazzab ak ay nangam wallahi huwal kazzab moom moom mooy fenkat moom mi weddi alquran weddi ijma bi bi julli ñëpp bokk di dund depuis quatorze siècle la moom mu jàpp ne loolu erreur la moom rek mooy kazzab yaa ngi dégg loolee kon mbokk ab échantillon la rek ci loolu xam nañ ni ku ko jiitu comme ma nga laaxire mi ngi laaxire waaye am na ko jëkkoon a yëngal Sénégal bind ab téeréem naan Muhammad alayhi salaam alquran ji feneen la ko jëlee fatiha bi mi ngi woon ci greco romaine yi nangam nangam mi ngi noonu waaye moom moom yàlla nga denc ci biir suuf ay mbiram nañ ko bàyyi ak yàlla waaye ala kulli xaal ñi ngi wax rek bépp ndawal julit ngalla waay bu dee yow intellectuel nga franc-maçon yi dañ li jëkkante nit yi caaxaankat yi dañ li jëkkante ngir loolu mën na la may promotion yu gaaw waaye xamal ne déedéet teddaa nga ci loxo yàlla rek la nekk kenn mënu laa jox ci àdduna lu yàlla tuddul ci yow abadan a yabtaxuna indahum al izza fa inna al izzata lillahi jamia booleem teddaa nga ci loxo yàlla la nekk te yéen jullit ñi day bokk na lu ñu leen wax heure bu ngeen toogeeg ay saay-saay ay yéeféer ñiy weddi aaya yàlla yi ci seeni wax di saboote alquran ak sunna jóg leen dem bañ a toog ak ñoom mbokk lii ba ko yàlla di wàcce mi ngi nekkoon lu yéefiri daan def mais malheureusement suñ jamonoy tey am na ñu ñuy tudde ay artistes ay théâtre kat jàpp nañ ne comme dañuy théâtre lu leen neex mën nañ ko wax ci yàlla mën nañ ko wax ci yonent yàlla mi ngi noonu da ngay gis kuy wax di wax ak yàlla directement gis nga yow yàlla nangam nangam sama ta njaay ah gis nga alxuraan ji nangam nangam loolu nit ñi ay julit di toog di xaqataay di ree mbokk loolu lu grave la ci képp ku koy def yaag ñoom yéen a yem képp ko toog ca télé ba di kontaan ci wax yooyu yéen a yem mu nekk lu ci gën a gën a gravité encore mooy weeru koor heure ndogu heure bi nga xam ni nit ñi dañu war a jege ak seen borom war a nekk heure ñaan ca la ñuy teg seen sketch yu bon yooyee mi nga noonu xale yeeg jigéen ñeeg mag ñu ñàkk fayda yi ñëpp na xam-xam mara di leen seetaan di rey mbokk loolu lu grave lu très grave la mi nga noonu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom nee na yéen a yem mbokk bay toog toogaaleeg ku baax ku lay delloo ci yàlla yonent bi alei salatu wasalaam nee na masalu jaalisu saalih wa jaalisu suu ka xaamilil misk wa naafiqi kiir toog ak ku baax muy wax lu baax mi ngi mel ne nga toog ak koo xam ne ay parfum lay jaay yonent bi nee na imma nga ñëw mu may la wala boog nga jënd bu la mayul jëndoo it jamono bi ngay toog ak moom yaa nga fay gét xet gu neex mu ne toog ak ko bon ñi ngi mel ne nga dem ci mbaaru tëgg mi nga xam ne jamono yu jëkk ya ay deru bëy lañ daan jël ci la ñu daan ëppee seen taal yi bu ñu ne bu ñu bësee mu ëpp taal bi ferñeent yi tasaaroo mu ne mi ngi mel ne nga dem toog ci yendu ca mbaaru tëgg ma imma dana lakk sa yére wala nga jëlee fi xet gu naqari looloo tax ba ngalawaay télévision la lu dul télévision lépp loo toog di ko seetaan del laajal sa bopp ah moom mooy li muy seetaan yàlla gërëm na ko yàlla gërëm na ko fillahi alhamdu nga xool laaj kii de li muy def yàlla gërëmu ko soo toog ak moom yéen a yem ca yàlla yonent bi alei salatu salaam nee ne ki gëm yàlla gëm yowmal qiyaama bépp taabal bu ñu naan sàngara bu mu fa toog loolu it kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom yàlla nag nee na dana boole naafiq yi ak yéeféer yi ñoom ñépp boole leen ci biir jahannam lan mooy tax naafiq naafiq mooy koo xam ne léegi kéeféer ngay def dara naqariwu ko ci mi ngi noonu bu ñuy muzabzabiine faruñu fii faruñu fii yal na yàlla boole ñoom nit ñu baax àdduna ak alaxira yal na yàlla yéwénal suñu jëf te may ñu teddaange fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw alhamdulilah xam naa ki day wax rek lu ci bëri ci média yi léeg-léeg ñu lay woon ay ndog yu ñuy nit ñi def partout te léeg-léeg it ñu woon ci ay jéggi dayoo ci yu ñuy def di ko publicité rawatina ñoo xam ne léeg-léeg ñu wala ñuy ndog sax ku ñu day tim xar bokk nañu xamee ne tasaare lépp looy tasaare ñaar moo ca mën a nekk lii ngay tasaare kat ngërëmal yàlla la tasaare ko ngërëmal yàlla la lii ngay tasaare ngërëmal yàlla nekku ca su boobaa ngërëmal yàlla nekku ca suñu borom day santaane nañu joxe ay ndogu ci koor waaye suñu borom moo ñu waxoon kulu washrabu wala tusrifu lekk leen naan leen te bu leen yàq lépp loo xam ne ay invitation la ay ndogu la ay lu mu mën a doon loo xam ne jullit ñi dañ koy woote waaye ñu gis ne kat ak puukare lañ ca am mooy loo xam ne waroon naa mën a suur mille personnes ñu jagleel ko cent personnes loolee mbokk du lu yàlla gërëm képp ko koy filmer di tasaare it yaa ngi tasaare lu yàlla gërëmul mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam waaw dialogue islam moo gën a neex.
naam
ndax foofu foofu tamit boobu bokk na ci wàll.
ndax dialogue islamo-chrétien ndax aaye bi ñuy mujj a jàng te mooy bu ñuy xuus ci aaye yàlla yi bu leen toog ak ñoom loolu du bokk ci loolu aaye bi mi ngi wax ñi nekk di critiquer diine l'islam amma yow bu dee sa jubluwaay mooy toog wax ak ñoom di leen xamal ne ah la nga xam ne mooy diine l'islam day preuve yaa ngi nii ne mooy dëgg gi jóge ci yàlla téere bi ngeen yor ay njuumte moo ci nekk yu seeni borom xam-xam def comme naka Ahmed Didat doon defee comme na nga xamee ni nii Zakir Naik mi ngi koy def tey ji de partout dans le monde yooyee ay débat la yoo xam ne du yàlla gërëm la amma bu dee dialogue islamo-chrétien ci niñ ko siiwele moom suñ jamonoy tey nga xam ne mooy nañu fexe ba diina ji nekk benn diine loolee ndaw ñi duñ mën a comprendre dañuy jàpp ne tarixa yi niñ mel rek noonu la islam ak chrétien mel dialogue boobu moom mbokk du dialogue bu yàlla gërëm bal dialogue bu xaram la ndax yaa ngi nangulal ay ahlul kitab ne li ngeen yor lu baax la lu valable la gannaaw bi suñu borom ne inna allazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi naari jahannam loolee kon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam la bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah li ñuy laaj daa daa wax daa wax di ko di ko di ko soxla mais bu mu coupé di yéeg di yéeg benn benn nit yi or ndax daa yàq or wala du yàq.
dafa woo roor doon communiqué ak soxnaam bi mu paree mu yëg benn liquide bu génn ci moom ala kulli xaal liquide boobu ñaar lay doon benn bi mooy masiyu te loolu mooy ëpp a génn ci ay wax muy liquide boo xam ne liquide bu sew la bu dee loolu day la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ñuy yàqul koor doonte ne am nañu ca taral ba ne day yàqu koor mais li ëpp ñoom dañuy yàqul koor amaa nag bu yeggoon ba wax ja yegg ba mënu yum génn su boobaa moom da ngay gis ne la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ñoo koor ga yàqu na képp koo xam ne yaa ngi def ay pexe wax ak jëf ak xool ba mënu yu génn ci yow loolee moom day yàq sa koor ndax suñu borom subhanahu wa taala nee na aji woor ji daa bàyyi lekkam bàyyi naanam bàyyi bànneexam ngir man te bànneex ba gën a mat ci bànneex mooy lu doomu aadama dem ba mënu yum génn loolee kon da ngay gis ne dafay yàqu sa koor wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain